Lassin. Bienvenue au restaurant fast-food pâtisserie Lassin. 50 mbokk yi yéen a ko doon laaj andil nañ leen ko ay mbokk taalibe ñoo leen andil seen restaurant bii di la Sainte lépp li nga xam ne soxla ko suñu restaurant bii di la Sainte am nañu ko bu ngeen bëggee pizza hamburger shawarma ak lépp li nga xam ne soxla ngeen ko muy plat sénégalais ceebu jën mafé supp kanja mbaxalu salu lépp li nga xam ne soxla ko seen restaurant la Sainte am na ko mbokk yi bu leen xaar bu leen waaj ñëw leen ngeen visiter suñu restaurant bii lépp li nga xam ne soxla ngeen ko daañu leen ko jox ñun restaurant La Sainte ngir yeneen i leeral mën ngeen ñoo woo ci numéro bi lee 78 132 97 97 78 132 97 lépp li nga xam ne nii ñu ngi koy defar mënees koo lim mën ngeen ñoo fekk fii ci Touba Gorni Serigne Modou Bousso Dieng ñun restaurant fast food pâtisserie La Sainte lépp li nga xam ne nii dañ koy def nag dafa méngoog dëkk bu sell bi di Touba ci noonu ñu ngi ñaanal Serigne Mountakha Mbacké mu yàgg fi lool te ànd ak weer Eh, ñu ngi ñëw jugee Kaolack ci ndigal yi Cheikh Mouhamadul Mahi Cheikh Ibrahim Niass xaadimul ummati mu yebal ñu boole ñu ak rakkam Cheikh Mouhamad Sirajuddin boole ñu ak doomam taawam Cheikh Mouhamad Moustapha Mahi ak Cheikh Ibrahima Fall ak Cheikh Haydara ak mboolem délégation bi ñu ànd ak ci taalibe yi ci mbokk gi yëpp ñëw fekk li si bés bi nga xam ne bésu lislaam la ci bés yàlla yi la bokk yàlla dogal tey ci tey yaa amee taxawaayi taxawaayi bés bi sang bi Cheikh Mamadou Mahi Cheikh Ibrahima Niass ne woon nañ ànd ak waa kër gi yëpp te tey su ko jamono maye woon su benn ndog ngant amuloon jàpp na ne toog ak yow feggoo ak ci waajaay bés bi ba bañ cee àgg loolu gën a jaadu waaye ku ne xam na ne ngànt moom ngànt la te xam na ne danga ko nangu loolu ndax xam na li ngeen bokk jàpp na ne it xam nga ni biis bi toll ci moom fuglu na ko ànd ak képp ku ci bokk oo ci lislaam ñëpp ndax moom jàpp na ne mooy liggéey liggéeykatu ñooñ lislaam mooy xaadimul ummati boole ñoo waa këram ñaan na ñëw ñëw ziyaar si la ndokkeel la ñaanal la yàlla sàkku nga ñaanal ko moom mu ngi ñaan yàlla nga yàgg fi yàgg taxawaay lool lépp luy sa mébét mu àgg ci sa kanam ci sa loxo ci sa kanam njaboot gi lépp lu sëriñ bi mébétoo nit nga fekk ko fi lépp loo ci waslu yàlla na yàlla àggal ko ci kàttanal la ak wér ak tal wax na ne mu ngi ndokkeel topp mi yëpp ndax bés bi bésu topp murit la yàlla dogal na yéen a nekk ci buntu boobu mu ngi ndokkal mbooram topp murit mi di leen gërëm di leen ziar di leen ñaanal ay hadaaya yu yum jëloon pour feeñal eh, xolam ci bés bi ebal nañu ñu indi ko ñu nga ànd ak eh, ndaw yi nga xam ne jaww li ñi nga xam ne ñooy saytu loolu waxoon nañ ñu indi lu jëm ci mbiru reeral gan ñi rek jox nañu ñaari gëlëm ñaari nag ak ñaari toni dugub pour ñu ñu dimbali ko ko ci reer yi gan ñi xam na ne tëwut xam na ne ñàkkut fi it waaye pour wane moom xolam ci bés bi moo tax moom noonu la ko jàppee. ñu ngi lay ñaanal ñun tamit ñu ngi lay ziare ci buntu boobu nga xam ne moo ñu ceebal eh, di ñaan yàlla mu nangu ñaan yi ci yéen ñaan ñëpp ci ñun seen ñaan yéen mooy mooy li li ñuy jëriñ ñun ci àddina ci àllaxira kon ñu ngi ñaan yàlla nangu seen ñaan yi ci zaahir ci baatin bàyyi leen fi ñu yàgg ñëw di leen fi fekk wa zalika àlalahi bi aziz wa salaamaaleykum wa rahmatullah nee na alhamdulilahi rabil ñu ngi sant yàlla bu baax a baax sant itam ci taxawaay bi. mu ne di sant it ci taxawaay bii. mu ne tox taxawaay bu jógee ci kilifa gi leen yebal. mu ne ngeen kilifa yu am yaakaar. mu ne ngeen ñëw teewal ko fii. mu ne dégg na kàddu yi bu baax a baax. mu ne kàddu yu sedd xolam la. mu ne kàddu yu dolli yaakaaram la. mu ne kàddu yu koy soññ la ci boppam mu ji fas yéene gën a feddal ay laxasaayam fas yéene ko gën a ànd ak yéen sax dàkk ci jaamu yàlla ak liggéeyal ko ci lislaam mu ne ñu ngi sant di gërëm bu baax a baax mu ne yëg na jéego yi mu ne yëg na jataay bi mu ne na ngeen ko delloo ziyaareel ko sëriñ Maahi bu baax mu ne santal ko ko bu baax mu ne ne ko yëg na taxawaay bu baax a baax mu ne ñoo ngi koy sant yàlla bu baax a baax mu ne ñaan ci baaxub sëriñ Tuubaa suñ borom gën goo gàttandoog tawfeex ci liggéey bi mu ne te wér jiitu ja fan wu gudd du ànd a kattan buñ gën a gën a mën a nekk ci liggéey bi buñ cee gën a mën a àggal suñu yéene mu ne cant gi amul fu mu yem mi ngi sant bu baax a baax mu ne di feeñal mbégteem bu baax a baax mu ne xolam set na guy jër ngeen jëf jër ngeen jëf jërë ngeen jëf bisimilah bisimilah bisimilah rahmaani rahim eh, mbokk yi ñuy déglu di ñu seetaan ñu ngi nuyu kenn ku nekk ci turam ak ci jëmmam di leen ziare ñu ngi fii tey ci Touba ci eh, kër Cheikh eh, Mouhamadou Mountakha xalifatu Cheikh Ahmadou Bamba di njiit ci lislaam bi am taxawaay boo xam ne tey dafa tool ci bésam yi nga xam ne moo koy taxawee. muy waajal màggal Tuuba bi noonu lañ ko mën a tuddee ñun waaye muy liggéey boo xam ne liggéey la ci tool yi lislaam boo xam ne yaakaar naa ne fi la ko fekk ay maam ay baay ay maam kenn ku ci ne góorgóorlu ci def ci itte jim ci def mu ñëw ba ci loxoom ñuy wax ne waral mooy tombé ay gaaf ku nekk xam na ne yokkute am na ñu ngi ziare mbokki tuuba ñëpp ci bés bu di bi nga xam ne moo dëgmal si nekk suñ kanam tey nag ñun ñu ngi ñëwoon teewal si xalifatu saaxibul fayda cheikh Mahamadul Mahi xaadimul ummati moom nga xam ne moom tur woowu la jël la kaayoo ko mu gënal ko lépp luñ ko mën a ooyee ndax loolu mooy principe moom. mu ne woon nañ ñëw feggoo si ak mbokkam xaritam dëkkandoom euh, doomi baayam doomi ndeyam kenn ci njiitu lislaam fegoo seeg moom ci waajaay bés bi ànd ak ay njabootam ay doomam ay taalibem ak toppam yëpp tey ku xam Medina ta xam ñii ñii fi toog ànd ak ñun na xam ne Medina suñuy wax mën nañ wax ne Medina ebal na ñi mu am ñëpp du ma dem ci détails yi ndax comme dañuy tënk lañ wax damay wax rek ne Medina am ebal na kilifaam yëpp ñi ñëw ànd ak Cheikh Mahamadou Siraji Diin mi nga xam ne mooy rakku Seydil Khalifa Cheikh Mahamadul Mahi ci suma ndeyjoor soo xoolee ci sama càmmooñ da ngay gis doomam Mouhamed Moustapha euh, Mahi Niass ak délégation yi ñu ànd yëpp. li waraloon jotaay bi mooy ñëw fekkale si Cheikh Cheikh Mouhamadul Mountakha teewal si Cheikh Mouhamadul Mahi indi ziareem ak ndokkeelam ak ñaanam euh, loolu moo waraloon jotaay bi. resevoir nañu fii ci këram def nañu comme niñu ñu Cheikh Mahi di def suñ dajee ak moom ci këram. yëg nañ ne ci suñ kër lañ duggoon te Cheikh maa yi bim ñu eb la ñu ebe woon def nañu sëñ Mountakha mii li ñu booleeg moom dafa bëri dafay gàttal wax ji mooy ne kawlax moo ñu booleek moom. kawlax fi la suñ baay bu tedd boobu Cheikh Ibrahima Niass dëkkoon nga xam ne moo doon signé al Kaolack yi kon dañuy wax ne képp ku kawlax booleek moom rek Kaolack boole na ko Cheikh Ibrahima Niass loolu moo doon suñu tànk tey ñu ñëw ndokkeel sëriñ bi ziare si teewal si. képp ku mënta ñëw te bëgg a ñëw wala mu war a ñëw te bokk ci ñun ñu ngi ñëw teew ci buntu Cheikh Mamadou Mahi jot jotali ndokkel ak ziyaar yooyu ak yóbbal yi wax na yëpp ñu indi ko nga xam ne moo jàpp na ne moo war a teral gan yi moo ren war a dalal te yàlla dogal mënut ñëw moo tax ebal na ñi bokk ci moom ñëpp euh, dind na ci lim am amam lépp ne nañ ko terale gan ñi loolu daal moo doon tànk yi ñu gërëm ñëpp di sant ñëpp di rafetlu dalal bi ñu dalal dëgg-dëgg xàmmewuñ fii ak bi ñu fi biñ see ak accueil nañu accueil boo xam ne xàmmewuñ ko ak fi ñu jugee moo tax ñu ngi sant yàlla tey yemale kàddu yi foofu salaamaaleykum wa rahmatullah La bien Bienvenue au restaurant fast food pâtisserie La Sainte. mbokk yi yéena ko doon laaj andil nañ leen ko ay mbokko taalibe ñoo leen andil seen restaurant bii di la Sainte lépp li nga xam ne soxla ko suñu restaurant bii di la Sainte am nañu ko bu ngeen bëggee pizza hamburger shawarma ak lépp li nga xam ne soxla ko muy plat sénégalais ceebu jën mafé supp kanja mbaxalu salu lépp li nga xam ne soxla ko seen restaurant la Sainte am na ko mbokk bu leen xaar bu leen waaj ñëw leen ngeen visiter suñu restaurant bii di la Sainte ñoo ngi nekk ci corniche Serigne Kounoune restaurant La ngir yeneen i leeral ngeen ñoo woo ci numéro bi le 78 132 97 97 78 132 lépp li nga xam ne ni ñu ngi koy defar mënees ko lim mën ngeen ñoo fekk fii ci Touba Corniche Serigne Modou Bousso Dieng ñun restaurant fast food pâtisserie La Sainte lépp li nga xam ne ni dañ koy def nag dafa méngoog dëkk bu sell bi di Touba ci noonu ñu ngi ñaanal Serigne Mountakha Mbacké mu yàgg fi lool te ànd ak weer